buñ daan ñëw danañ xam ne kii kilifa la mu jaar fii mais loolu amul léegi nag pour distinguer leen pour kenn ku ci ne ñu xam wàccuwaayam ñu yor accueil bi ñooy man di taxaw fii taxaw fii bañ fee bougé ku ñëw doon kilifa ñu jël la dugal la ci biir bu ko defee nag ñi ngi fiy teg dañ leen di wax ñu collaborer ak ñi pour mën a liggéey ñoom nga xam ne benn jafe-jafe du am loolu dana yombal liggéey bu ko defee accueil fii la taxaw duñ dugg ci salle bi bu ñëwee jël ko jox ko protocole protocole andi ko ba ci salle mu yem foofu bu ko defee am nañu ko jël ci salle bi yóbbu lañ ci salle bi bu ñu demee yi kenn ku ci na fa nga war a toog ñun xam nañ ko loolu ñun ñoo koy lijjanti ñun xamante nañ ci suñu biir jàpp naa ne tam lu toll ne Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké suñ ko jàppalee journée di ko defal man waxuma la kuy sëtub sëñ Baara waaye képp koo xam da ngaa njabootu Serigne Touba wala ci yoonu Mouride Cheikh yëpp am na loo séq ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ci zahir aw ci baatin waaw te sëñ Baara bi fi jógee ba léegi njabootam gi fi mas a remplacé nañ ko njabootu Serigne Touba gi ci lépp nag kon bisub sëñ Baara bis la boo xam ni bis mu war a rëy doon ah ñun njabootu sëñ Baara gi nag sant nañ Cheikh Mouhamadoul Bachir mi baax a baax ci lii mu defal maamam. defelaal ko njaboot sëñ Baara gépp ndax sëñ Baara ku màgg la ku rëy la doomu sëriñ Touba la waaye nit noo mën a toll ci àdduna tam buñ la wonewut kenn du la xam. dëgg la ak koo mën a doon nag. wutu fi nag euh, mbooleem këru diine yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi wuutu fi aussi doomu daara yëpp ndax xam ngeen ne bis bi nga xam ne. sunu mbokk Serigne Bassirou Mbacké Serigne Khadim Awa Ba wax ne ci turu xalif général des Tidjane ak xalif yëpp ak kuréel diine ji yëpp fa tabarakallahu ndigal lim ci am ci Touba ñooñu ñëpp dañ koo yeesal renouveler ko. ndax dañoo gis ne bis bi dem na ba nekk léegi dimension boo xam ne ëpp na Touba ëpp na réew mi waaye ëpp na Afrique àdduna bi yëpp ñoo koy jëriñoo muy bis boo xam ne eh, bis boo xam ne. li yàlla di wax ci alquran ne waatasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu jullit yëpp nañu ànd mooy ci alquran nekk benn sëriñ Basiiru Mbakke xaadim Awa Ba yàlla dogal na réussir na ko ci ndigalal ay baayam ay magam ay kilifaam. at depuis 2004 ñu ngi koy liggéey fii ci foire bi euh, bu ñuy jeexal nag dañuy baaxoo ñëw gaaral tolluwaayu liggéey bi ak naka lañ ko defee. ki nga xam ne nag mooy suñu coordinateur sëriñ Bassirou Khadim Awa Ba ku ne xam na ne at mu jot jéego yi muy teg bu at ma ca topp dellusee day wuute lool ci ko ñëw fii ci jotaay bi di nga gis ne liggéey bi daaw ak ren différence bi yaatu na lool ndax yite ji nga xam ne jox na ko bisu maamam bi di bisu sëñ baara bi bis bi nag bari lu mu làmboo ci ay njariñ njariñ loo xam yoo xam ne yu soxal réew mi la muy bisu jàmm waaye bisu ñaan waaye bisu sant yàlla loolu nag ñu ngi koy doore ci alxuraan lañ koy doore ak xasiday sëriñ Tuubaa yi ak ñaani ñu baax ñëpp ci réew mi kilifa yi diine yi nekk ci réew mi kon nag loolu lu amal njariñ Sénégal la waaye nag euh, li nga xam ne moom lay doxe ci wàllu liggéey bi mu yitte ju yaatu yi mu koy jox muy jël lépp ci ay matuwaay yu yaatoo yaatu ndax gis ngeen euh, liggéey bi ni mu doxee ren base bi ni mu mel euh, tey ñu ngi ak sécurité bi ñu ngi ànd ak commandant moom de gendarmerie bi mu war a war war ñu war koo leeral li nga xam ne nii jot nañ koo liggéey ndax mu mën a jël ay matuwaayam ci bis bi nga xam ne nii dëkk mën lañ ko le na novembre. fii ci foire bi. nous sommes à la 16 16e édition bi nag mooy ku fi màggoon tey jii ba am 16 ans mag nga. ñu daan jël ay dispositions di def une reconnaissance avant l'événement reconnaissance bi nag les force de défense et de sécurité lañ ci àndal ndax événement bu mel nii nga xam ne ça va drainer des milliers de personnes état bi da ciy dugal loxoom ba nga xam ne danan sécuriser les personnes. et de leur mhm. moo tax ñu ànd ceeg waa gendarmerie ñi nga xam ne tey jii ñoo yore zone bi te seen kilifa muy le général Moussa Fall yónni leen fii comme ni mu la koy defee at bu nekk les sapeurs pompiers ma ngi nii général bi tamit yónnee leen fii chaque année tamit noonu la ñuy noonu la ñu koy defee plus le service d'hygiène nga xam ne ñoom. avant événement bi danañ ñëw fépp foo xam ne war nañ koo euh, désinfecté ñu dugg ca kon les force de défense et de sécurité ñu leen ànd ak nii sur le aw bien sûr du coordinateur euh, sëñ Bassirou Khadim Awa Ba euh, événement bi nag le cinq la mais le quatre boo gisee ñu ñëw di def reconnaissance dañuy xool li nga xam ne moom moo avancé ci liggéey bi ak liñ ci dese. di wax ne am nañ satisfaction à quatre-vingt-dix-neuf pour cent ñu ngi nii kilifa yi ñoom ñoo ko wax. très bien li ci des mooy le jour de l' événement c'est-à-dire le vingt quatre la veille sécurité bi dana nekk en place parce que déjà gendarmerie jël nañ disposition yëpp pour que le vingt quatre ñoom dana occuper les lieux la les, les sapeurs pompiers tamit même chose fekk ne service d'hygiène moom dana fi jaar ba def liggéey bi muy def ba pare euh, loolu le vingt cinq la.